Euh, ba tey ñu ngi fii ci Ndiassane euh, comme niñ leen ko waxoon ñu ngi ci kër euh, Serigne ñu ngi ci kër gi ba tey waaye ci noonu tamit ñu fas yéene waxtaan ak ki nga xamante ni moom moo nekk sëñ Umu Kalsum Kunta moom tamit soxna si nga xamante ni moo yor ay kàddoom moom tamit mu yëkkati ko ñu bàyyi ko nuyu soxna si ñu ngi lay nuy ñu ngi lay fay salaamaaleykum wa rahmatullah tey ñi ngi fii ci e, fi nga xamante ni moom moo nekk ci Ndiassane mu nekk bés boo xamante ni ñu ngi ko jagleel yonent bi sallallahu alayhi wa e, mu mel ni am ay kàddu yoo xamante ni rek war nga ko yëkkati e, pour mu jóge ci soxna. asalaamaaleykum wa rahmatullah ñu ngi leen di sant waa mu nawir TV yéen ñëpp ñu ngi leen di nuyu ci turu soxna si di Adja mu xayri Kunta soxna Cheikh Ahmad Tidiane Arifaa yi ñu gën ko xam ci turu Cheikh Naar. Eh, di waa Ndiassane nag di lépp Ndiassane macha allah eh, soxna si nag nee na amul seen fay waaye mi ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di nuyu ñëpp bàyyiwul kenn góor ak jigéen mag ak ndaw eh, tàmbalee ko ci kilifaam borom këram di Serigne Cheikh Naar di Cheikh Ahmed Tidiane Arifaayi nee na mi ngi koy nuyu di ko sant di ko ñaanal waaye mboolem mbokk yi rawatina famille bi nga xam ne dañuy famille di léppam. ñëw fekk si ko muy ku sant Kunta muy ku sant Kebe ndax euh, umpalewu leen ni nekkoon na soxna si alxaaji Njuga Kebe mooy euh, papay sox doomam ji di soxna Awa tey mu nekk soxna mbokkam mi di càmmeñam di léppam di soxna Sëriñ euh, Seex Naar moo xam Sénégal la nag moo xam ñi jóge bitim réew la ndax fépp fu mu fi nekkoon ci bitim réew itam macha allah ñi fa fa nekkandooloon am na ñu fa jógee muy Égypte muy Màkka muy feneen fu mu fi mënoon def bitim réew it ñam fa nekkandoo loon macha allah ñëpp ñëw nañu wis si ko tey ni nga xam ne noonu la ko bokkam yi xeetam bi comme ni ma la ko famille ñoom aw kenn desul euh, ñëpp si nañ ko macha allah Mbacke macha allah ñu fa jógee ñëw ci famille Mbacke fami Fall Sénégal daal macha allah ñi ko wis ak ñu jógee bitim réew nepp nee na amul seen fay xaritam yi ak doomu ndeyam yi kenn ci ñoom. Adja soxna a jong mi nga xam ne depuis bitim réew ñoo nekk te tam xam luwul daraam guddeeg bëccëg subaa ngoon mi ngi ne teew e, ki topp ci moom di soxna e, maam Kumba Laay moom itam di suñu wëlëre suñu doomu ndey mu jóge Laayeen ñëw moom itam e, bokk ak ñun bis bi ndax bés bi dafa neex ndax di dee bés rasulullah sallallahu alayhi wasallam te daanu ci ñëw eh, soxna si ci sama càmmoñ di soxna Sodo Diagne bëgg faalu nga xam ni moom it depuis RTS Dunia eh, ba Touba TV gu mujj gi barki Dembo waxtu wu nekk ñu ngi ànd ay émission ci rajo yi ak télévision yi mboolem waa aajo woo jàmm ñu ko wuy si nag di góor ak jigéen mag ak ndaw gis na ni oustaz Mor Thiam léegi la génn ak ñi nga xam ne ñu ngi ci biti ñu toog fii pour def interview bu gàtt bi dafa am ndaje yoo xam ne ku la ca boole sant ko rek ngay man ndax soxna ummi def nu boole ci boppam waaye def nu boole ci bésu rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ndax sallallahu alayhi wa moo ni ndaje yu mel nii wa isa marartum rawdatan min riyadil janna u bi zamariha qaalu wa maa riyaadul janna ya rasulallah qaal al jalsatu lati yuskaru fii hasmallah mu ne bu ngeen rombee tool ci tooli aljana yi na ngeen dagg ca meññet ma ndaxte ñu ne ko lan mooy tool ci tooli aljana yi mu ni mooy jataay boo xam ne ñu ngi fay tudd turu yàlla waaye jataay boo xam ne ña départ di dem sunu boroom gis na leen ba pare di leen seedeloo malaaka itam moo leen gën a xam li xew jotaay boo xam ne bu ñu fa toogee di wax yàlla ak ab yonentam njëriñ yi ñu mën a wax mboolem tey borom xam-xam bu fi jël kàddu jëlee nañ ci yow njëriñ ci loo xam ne a nañu ko ci yonent bi fas ci yéene di ci jëriñu reen ba déwan mooy li Mor Thiam wax tooguñu fi waxtaanee karaama yi kese ak yi nga xam ne mooy mujisaat yi miracle yi déedéet waaye dañ fi toog di jël ci yonent bi loo xam ne la Seexul Xadim waxoon ni raamal wara nay la fadilin musriina lahu wal fadilu inda rasulillahi qaraar ngëneel yëpp ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam la daje ki soxla ki nu ñuy jullee jël na ko ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ba doyal ki soxla menuiserie jël na ko ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam soxla ci wàllu médecine jël na ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam lépp la yàlla boole ci moom ndax def ni téere bii ma ko jox di alquran maa faratna fil kitaabi min shay'in téere bi di alquran yàlla bàyyiw ci dara téere boobu nag di mujisa gi gën a rëy di miracle bi gën a rëy yàlla ko sallallahu alayhi wa sallam boole ci la jëkk ba ci li mujj mu jox ko ko kon ku la ne kaay nu diraasa tey téere boobu kaay ñu def mu raajaa kaay ñu fàttalante suñu lislaam kaay ñu fàttalante diine rawatina def ko ci bés yu ñu barkeel yi ndax bés yëpp bési yàlla mais teewul alquran ne ayyaamullah bési yàlla yi lii nag bokk ci bési yàlla yi muy bési yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ñu ne tey jii la gane woon addina ba bés bi del si maamam abdul mutalib yenu ko dem ba ci kaaba gi mu wër ak moom barkeelu fa te albarakatu lil mutabarrikina maanaam barkeelu képp kuy barkeelu yàlla def lay defal barke waat ci bés boobu Ndiassane defal nu ci loo xam ne tàmm nañ ko ca sunuy maam ba léegi bu bés ba dellu see ñoom itam ñu def barkeelu googu barkeelu ci yonent bi borom xam-xam yi ñëw fi awliyaullahi taala yi nekk fi depuis ca seeni maam ba léegi ñuy ñaan suñu borom di nangu ñaan yi ñu dellu si di beesal suñu njéggalu ci sunu kanam borom yal na yàlla boole ñu jéggal soxna umu nee na mi ngi ñaanal jaam yi njéggal di ñaanal jaam yi njëriñul àddina ak lu àllaaxira di ñaanal jaam yi mucc ñaanal ko seen njaboot mi ngi leen di sant nag nee santam amul fenn foo xam ne fa la tàmbali wala foolu fu mu yem dékk na ko mi leen na fay yal na leen yàlla fay ñun tam nag dañ koy ñaanal ñun ñi nga xam ne ñoo ko fekk si yal na ko ko yàlla yàgg man loo ñu yàgg ko fi fekk ci suñuy maam suñuy ba ci suñ ñun ñi ba ci suñuy doom ak suñuy sët yal nañu suñu borom xiir ci lépp li nga xam ne def nañu ko fi muy jaamu yàlla gi mu nangul ñu ko ca na mu toll jéggal ñu mboolem rëcc rëcc boo ca am la alquran waxoon rek wa arina manasikana wa tub alayna innaka anta tawaabu rahim jërëjëf waa Munawir TV Eh, jërëjëf eh, gis nañ ni nga xamante ni tënk na ko kàddu yi muy lu am solo kon mbokk yi ànd ak Almunawir eh, TV ñu ngi leen di sant di leen gërëm nii rek lañ ñu fas yéene ànd ak yéen fii ci fi nga xamante ni moom moo nekk ci njaasaan jërë